ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara bu baax di leen ndokkeel di leen balu aq di balu aq ñëpp jiital ci nuyoo bi mu Cheikh mënta Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu njabootu Cheikhul Xadim gépp ak jullit yi fu ñu mën a nekk eh, di nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne danañ ñu baaxoo topp ci seen jataayu gàggantiku gii di am ci weer wu nekk le 23 ak la 9 ci weeru tubaab bu nekk eh, indi ay bindi gàgganti ko ay laaj yu aju ci diine yoo xam ne nit ñi danañ ci jariñu euh, te duñu yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp ci GMT TV muy chaîne de la grande mosquée de Touba wala MKTV di seenu Muxaddamatul Xidma bu jumaay Touba euh, ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen sant it ci ñaan yi ak wax yu baax yi nga xam ne yéen a ngi koy wax di ko jëmale ci sëriñ bi ak di ko jëmale ci waxtaan wi Eh, mbokk yi ñëwaat nañ fii ci Darou Salaam daam ci ka kër Serigne Mbacke Abdourahmane moom mi nga xam ne moom la ñuy indil suñ binti gàggantiku yi ngir mun ñu ci gàggantiku ci suñ diine eh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu eh, te di la dalal salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñuy bàyyi xel ci ëttub xam-xam bii ni nga ko waxee te ngeen di ko taxawee di ñaan suñu moom gën leen a sàmm gën leen a dëgëral di siyaare bu baax Mawlana Cheikh Mouhamed Mountakha di ñaan suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral di nuyu nga xam ne liggéey bi ci loo xam ne nekk ak mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom liggéey bi sëriñ Abdoulahad jërëjëf sëriñ bi ñu ngi nuyu tamit sëriñ Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak suñu ñaari cameraman yi sëriñ Murtada ak sëriñ Bàcc Ba di nuyu tamit Serigne Abdoulaye Lo nga xam ne danañu jàppale ci ci émission bi xam naa fi ne ma nga Maroc sax liggéey boobu nga xam ne yaa koy taxawe ngir ñu fay dem di e, teewal Touba ngir ci ñu leen di tàggat ci wàllu imaama ak yu ni demee ñu ngi leen di nuyu baax di nuyu bokk nekk yëpp sëriñ bi kon suñu laaj bu njëkk euh, kii dafay laaj mu ne euh, lan mooy atteb ki nga xam ne daal bi dafa bëgg bi bi mu demee ba takk ba bëgg a takk am ñaareel dafa demoon euh, seetlu ko ngir euh, muy listixaar yooyu ñuy def xëy na da cee bëgg a wane ne ndax amut ay conséquence wala dara seet ba xam ndax soxna si baax na ci moom jig na ko wala jigoo léegi nag bi mu ko seetloo bi mu takkee bi dem ba ci biir ci biir euh, sëy bi liggéey bi mu doon liggéey am ci ay ay ay yàqu-yàqu léegi nag bokk yi nga xam ne bokk jege ñaaleem ne ko ah yow kat ne sa soxna su mujj si nga takk war ngaa ay mbiram dafay mel ne moo la jigut te xam ne xel moom miy liggéey ab liggéeyam xam na li yàq ab liggéeyam mu ne ndax day topp loolu bokkam yi wax ngir sonal ko ci ngir wàcc ko wala day téye soxnaam wala ak lan ci lan la ci àtteb lislaam ci loolu jërëjëf sëriñ Abdul Ahad xam nga sunu boroom moom moo santaane takk ay soxna hmm. moo santaane it ku bëgg jublu ci lu mel ne soxna nga def listixaara hmm. moo jàngale it ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam listixaara gi ñu war def hmm. loolu nag bu ko nit ki ba noppi dugg ci mbir lum ca fekk rek na xam ne noonu la hmm. ndax nit ñi war nañoo xam ne suñu borom noppi na ci ñeenti mbir hmm. bokk na ca wërsëgu nit ki doomu aadama bu ñëw àdduna lii wërsëgam ci àdduna yàlla da ko mooñaale balaa faatu dana ko lekk ba mu jeex bu ko lekkee ba mu jeex dara fokki mënatu ko téye kenn mënu koo lekk ci ginnaaw mi kon loolu bu ko ñu xamee yu bare bari yu ñu nit ñi di wax jig na laaj jigu la da nga ko da nga ko weesal sa bopp loolu du jikko ju jullit war a fas waaye ah, yàlla mi la bind moo gàddu sa wërsëg te nee na kenn du ko lekk sa place ñu bàyyi xel xelit ne soxna yi ñëw ak doom yi yow mi yor kër gi yoroo leen seen wërsëg la ñu àndaale soxna su ñëw ci kër gi sa wërsëg la àndaale wërsëgam la àndaale bu fi bu fi jeexee day dem mhm. doom ji nga am wërsëgam lay indaale di ci dund day jaar ci sa loxo nag kon loolu bu ko nit ñi xamee dañuy noppalu ci yu mel noonu kon nag bu xasee xam loolu xam ne soxna si ba mu koy la taxaw ma di ko ko aajoo ba tey mhm. te la mu koy doyee ma nga koy mënal na téye soxnaam te ñaan yàlla mu dimbale ko am na am yoo xam ne ànd ca ak nit sax mhm. day nuru ànd ca la fas te loolu du pas-pas bu sëñ bi jërëjëf euh, laaj boobu leer na euh, mbokk bi dafay laaj euh, laajoon nañ fi lu xaw a niir loolu mun ndax dana dagan ci jullit bi nga xam ne dafay dafay maanaa maanaam muy yéeg tëdd ci kaw lal wala wala wala det nga xam ne dafa nekk di di teññ waaw kay sëñ Abdoulaye xam nga teññ fii ci wolof yi moom mhm. dañ ci àllaxaas yu bari yoo xam ne bokku ci mhm. xam nga jigéen ji teññ lu ko wóotale ki teñjut mhm. du taaru du tukki du taaru du tukki uh-huh. ay takkaay ay yëpp yoo xam dañ koy taaralal la koy moytu ba liggéey bi jeex waaye du fanaan àll yi du tukki dem fenn waaye bu doon xëy liggéey sax ci jaba wala ci jàngukaay ba wala ci fajukaay ba mën naa dem xëy liggéey bu wàcc jotee mu wàcc <coughs> ni mu doon jullee noonu lay jullee lañ ko santoon ci muuru it mooy ab jàmbur bu mu gis awraam uh-huh. loolu lañ ko sant waaye bu nekk ci biir néegam moo ko njabootam ñoo xam ne du ñu ay jàmbur ci moom kenn tëriwu kenn santu ko sax forcé wu ko ci muur bopp kii yëpp ay dago ci wut ab mbu moo xam ne ci borom kër ba lañ koy jëlee laxas ci bopp beeg gu dégg bëccëg suba ngoon da ko ci def yor ay paakaak doo toog ci kaw lalab euh, waxtu saam ngoor yeewoog nii ngay jàppeeg nii ngay jullee yooyu yëpp ay aada yuñ ci laxas waaye du diini hmm. diini lu yomb la seen laat ni nga doon jullee noonu ngay jullee li nga santoon njëkk ngay tëñi loolu sant yokk ca rek bàyyil taaru bul fanaan àll hmm. lu ci du loolu nag aadaa ko ci dugal waaye diine Euh, bokk ni dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafay jënd ay pàkk yu bëri walla euh, denc ko ndax day war ci moom ci pakk yooyu mu denc mu xaymaal pakk yi bu at mi mu xaymaal njëg gi génn ci asaka walla deet waaw jërëjëf bu fekkee ne day pàkk yi marchandise la hmm. nga xam ne moom day yaxantu ci suuf day jënd ay pàkk saa bu gisee yëg jaay kooku saa bu at mi waxtu war a génn asaka jotee day xayma pàkk yooyu li muy jar fi mu nii tey bu ko doon jaay ñaata la koy jaayee ak yeneen bagage yi mu yor di ko jaay yëpp te jëragut ak li mu yor ci xaalis lay boole bu dee nag koo xam ne pàkk yi da koy denc ci alalam xare moom dafa ko du marchandise xëy na daal am na alal gis na barab bu jënd fay pàkk ngir xëy na fii ak fukki at wala fii ak ñaar fukki at mën naa am mu am njëriñ kooku moom loolu du marchandise kooku nag bis bu ko jaayee xaalis ba bu ko denc yaat askan ca waaye am naa ki nga xam ne moom pàkk bii njëgal ko fi bàyyi moom marchandise bi ci biti bi ñoo ki ci liggéey daal moom waaw nga xam da ciy liggéey moom mm-hmm. lu mu gis jënd bu subaa bu gisee ko tegal prix mu jaay mm-hmm. bu at mi day marchandise la na xayma pàkk yi na xayma pàkk yi ci njëg gi mu koy jaayee boole ko yeneen marchandise yi ak ñu ci xaalis génne ko asaka ki nga xam ne moom dafa denc liggéeyu ci moom waaw kooku moom moom yàgg-yàgg bu ko jaayee daal bu ko dencee at denc njëg at asaka dool ko ci mm-hmm. jërëjëf loolu leer na kii tamit dafay laaj mu ne ndax ki nga xam ne dafa am ay bor ay bor yu bëri euh, te war a génne asaka ndax asaka ji muy génne ci nisaab bi daf ci fay bor yi doog a génne li ci des wala day calculaale bor yi waaw bu fekkee ne asakay xaalis la mhm. asakay mbay ak jur bor do ci jeexital ci mazhab imam malik mhm. maanaam soo booleen ab tool ba mu mat mat nisaab mhm. nga am ay bor yoo xam ne boo jaayoon tool bi sax bor du mat du tee da génne asaka ci mbay mi boo amoon fanweeri nag yor leen at da génne asaka ci ci nag yi doonte amee ngay bor waaye bu dee xaalis nag wala asakay commerce kooku moom boo dajalee li nga am ci alal da koy génne bor yi la ki des su ma tey nisaab asaka door laa war. macha allah kon xaalis moom bor yi bor bor hmm. da ci des su ma tey asaka war la. Hmm. waaye bu dee mbay ak ak asaka du ci ah, bor du ci jeexital. bor du ci jeexital faaw moom ñàkk bor da nga koy génne asaka. Hmm. loolu leer na euh, laaj bi xaw na koo jege sax bi ci topp nee na ñi nga xam ne dañuy bu ma nekkee Europe bitim réew di liggéey euh, di denc sama xaalis ndax asaka ji may génnee mën naa koo yónnee waa Sénégal euh, ngir su fekkee ne sama banque bi nekk Sénégal bi ma koy denc Sénégal la nekk wala fa may liggéey laay génnee asaka ji. waaw xam nga sëñ Abdoul Ahad asaka. Mhm. bu dee jur la. Mhm. wala mbay. fi alal ji nekk fa la ñuy joxe asaka ji xanaa tool bi fi mu ko bàyyee bu ko génn lu ëpp soixante-douze kilomètres ci lu dul nga xam ne dangaa gis ñu xiif bay bëgg faatu gën a aajowoo te ñi fi nga nekk ni aajowuñ ko mais fii gis ñu ko aajowoo fi nga nekk wala lu wër foofu sa ñoo ko génne bu dee jur noonu asakay xaalis nag dañuy wax ne fi alal ji nekk ak fi borom alal ji dëkk fu mu ko joxe baax na kon moom mi ngi dëkk fii ma ngay liggéey bitim réew kon joxe asaka ji fi mu dëkk baax na joxe ko tuure baax na. ñoo yem bu fekkee sax xëy na fi nga dëkk ñëpp gën a aajowoo su boobaa day gën a yey waaye daal loolu duñ ko tuddee ak jéggat jéggat ci asaka ñu ngi koy wax ci ak jur wala mbay nga weesale ko juróom-ñaar fukki te fekk ñu ko aajowoo hmm. ne waaye dañ jàpp ni alal ji moom mën nañ ko askan fi borom dëkk mën nañ ko askan fi alal ji nekk hmm. rawatina niñ ko ne bu dee banque boo xam ne mën naa am alal ji li ci ëpp mi ngi fi nga dëkk fa hmm. kon day mel ni moom fi mu dëkk fi la alal ji nekk bu fekkee loolu sax na noonu sax la mooy daanaka foofu lañ ko war a génne même bu fekkee loolu amul tamit bu fekkee daal képp koy liggéey Europe wala Amérique sañ nga sa asaka nga génnee ko euh, joxe ko senegal waaw képp koo xam ne da ngay liggéey ci xaalis nga xam ne asaka xaalis ngay génne mm-hmm. dañoo xam ne barab bi nga dëkk ak fi alal ji nekk foo ko fi joxe baax na macha allah loolu leer na lool euh, kii defee laaj daal mu ne xeeti njaaloo daal bëgg na koo xam ndax it am na loo xam ne bëgg na bëggoon na koo leer Euh, donte xam naa ne ñu koy def war dañ ko bàyyi muy ñi nga xam ne euh, dañuy jël seen téléphone wala image yoo xam ne dañ ci xool góor ak jigéen yuy jaxasoo dañ yëg ca seen bopp ndax loola dañ dañ koy tudd ci dañ koy boole ci xeeti njaalo wala yan mooy xeeti njaalo hmm. jërëjëf xam nga yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa moo jàngale ne hmm. bët dana njaalo tànk dana njaalo hmm. loxo dana njaalo ci yi maa dal cër yëpp mu dana jaalo jaaro bët mooy xool lu mu war xool jaalo yi nopp mooy déglu ko jaalo yi tànk mooy dox jëm fu mel noonu hmm. ñaa njaalo yi loxo mooy laal lu mu ku mu yëpp bakkaar la hmm. xëy nag atte njaalo bi am nga xam ne rey wala dóor téeméer yar du ci am hmm. waaye nag bakkaar dana ci am bakkaaru njaalo moo yooyu jullit da ko war a moytu ñaareel ba it dañuy wax ne bët mooy ndawal seytaane nit ki lu mu bañ a def bu mu ko xool di ko seetaan te boo xasee boo xasee teg sa bët ci dara muy lu bon yoonu njëkk ba bàkkaar ni ku ci mën naam téye ko da ko gisutoon waaye loo xoolaat nag loolu seetaan la mais lislaam xëy na terewut xool waaye seetaan lay tere hmm. loolu gis ndax loolu la nga jékki-jékki yam ci lu ab safaan waaye teggil sa bët bu ko ci tegaat loolu lañ sant ak julli waaye nag di di xool lu xaraam wala di ko déglu wala di jox jëm ci wala di ko laal ci sa loxo loolu moom ci hmm. bàkkaar yi la bokk xam ko war a waaye aggut ci bàkkaaru ñu war a dóor nit ki wala ñu ray ko tax ñu dóor nit ki ci maanaam léeg léeg hmm. waaye nag loolu hmm. ndax day jur hmm, la maanaam bët moomu day jur dëgg dëgg dëgg bu yàggee mën nga dox rek mën naa doo jëm ci moo tax euh, mbokk li ci topp dafa mel ne day laaj ji mi laaj ci wàllu wérdu màquus la na ku ko leeral ci yoree kurusam di wérdu maanaam nekk ci salaatul fatiha ba yàgg kurus gi wadd te xamul fu mu tolloon léegi nan lay def day seet fenn mu tàmbalee ci wala day tàmbali wér tàmbaliwaat wér du wala daal loolu euh, bëgg naa xam daal nan la koy jange su boobaa salaatu faate bi bi mu nekkoon mm-hmm. te xamul fu mu ci toll mu lay mu lay tàmbaliwaat voilà ci précours yi bu ko réeree tamit waaw xam na ne masalan tey xamul ba xam mi ngi ci mi ngi ci fanweer ñeent fukk ñu jàpp ne amagu dara ci salaatu faate mm-hmm. ñu jàppaat ne salaatu faate day arrêté waaw waaye nag la njëkk jàll baax na. Mhm. Ah, kon saar faate bi ko mhm. ah, loolu moom lay tàmbalaat. leer na. Ah, mbokk mi nee na dafay laaj ki nga xam ne dafa bëgg a denc denc denc soxna ab kitaab ya mhm. léegi moom léegi kooku kilifteefam ndax ci ay ci ci kitaab ya maanaam ci ci ci nasaraan yi lay ñoom ñooy doon kilifa ndaw si ko war a may wala day dem ci ay jullit ñu ñu ñu may ko ci. Euh, ñu euh, ñaari laaj la beneen bi mu ne <clears throat> ndax dagal na ci jullit bi muy dugg ci biir église waaw xam nga takk ab kitaab yi te mooy ñu bokk ci ahlu kitaab mm-hmm. ab chrétien wala ab juif mm-hmm. dagan na ci lislaam doonte gënul nag rawatina jamono ji nga xam ne buñ bàyyee julli ñu takk leen julli ñu dañuy lambu mën a def safa mën a doon leneen mm-hmm. waaye nag dagan na moom waaye nag saa takk ku mel noonu ñoom ay bokkam ñoo la koy may maanaam ku dul julit julit du kilifaam ci wàllu maye kon moom mën naa dem ca ay bokkam buñ la ko fasalee ci nañuy fase wala nga seen seen jaamukaay yi ñu dem ci église ba buñ la ko day sax ndax lislaam ñu nangu nga takk ko moo nangu ñu fasal la ko hmm. waaye nag wax ne man ab julit laa dem ci imam may la ko moom liman lim lay may amul kilifteef ci moom ab julit amul kilifteef loolu suñu bëri na ci àll bi lool da gis ku gàddu moromam tubaabam ñëw ci daayira wala mu ñëw ci kër sëñ Tuubaa yi wala yooyu rek xëy na koy def dañoo foog ne bu ko la ko ab chrétien maye wala église bi may du wér mm-hmm. dana wér ah, ndax ki daganal nga takk ko moo daganal ah, mm-hmm. ñoo ñu may la ko yàq la waaw waaw xëy waaye noonu la war demee moom ko ki ay ah, bokkam koy may ñaan ñu may xam nga ñoom bu nañuy mayee soxna eh. saxal ne kii sax soxna mm-hmm. loolu la ñu jàpp waaw lislaam da koy daganal koy nangu mi ngi mel ni tey ñaari way dencante yu àndandoo tuub dugg ci lislaam doon ay yéefar kenn du wax fasal leen sëy Hmm, dañu bàyyi mu continué kon ñu doon ay seen i tig ñaari way dencante waaw hmm. macha allah jërëjëf sëriñ bi yi nga xam ne ñoo ñuy sopp topp ci émission Gagganti ko jërëjëf sëriñ Abdou Lahad naa di leen sant di sant mbokk yi bàyyi xel jotaay bi yëpp ñu ko waxee mbokk yi ñaan yi yàlla ko yàlla nangu te boole hmm, amiin ah, di wax am solo boo xam ne eh, ak julit lépp lu ñuy def ci diine baax na mu leer ko mu door ko def ndax mooy tax na nga ko def jërëjëf euh, sëriñ Mbacke Abdourahman ñu ngi lay ñaanal yow suñu borom defal gudd fan ak wér ak kàttan ba li nga yéenee liggéeyal yàlla ci sa xam-xam lépp nga man ko euh, te yàgg lool barakati xaadim rasul ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñu topp ndax foo ne ci àddina bi lañuy ñuy yónnee ay message ngir seen diine euh, bëgg cee xam lu leer kon loolu it ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax di sant it mbokk yi nga xam ne ñooy tisaare waxtaan yi ci yeneen support yëpp ndax fenn fu nekk lañ koy dugal ngir di gën a yaatal mbir yi ngir nit ñi mën a gën a xam seen diine eh, nu ki noonu tamit kon mi ngi fàttali rek ne képp koo xam ne am nga ab laaj booy laaj muy laaju diine mën nga ko yónnee ci numéro bii 77 531 91 98 wala nga yónnee ko ci 77 678 57 66 te boo ko ci defee incha allah laaj bi dina agsi ci Serigne Mbacke Abdourahmane mu tontu ko mais ñu fàttali ne tamit buñ koy tontu ci émission lañ koy tontoo ci émission bi la ñuy tontoo laaj yi kon da ngeen di abonné ci MKTV wala GMT TV ngir mën a jot émission bi saa su nekk émission bi le 23 bu nekk ak le ci weeru tubaab bu nekk lay ñëw kon ñu ngi leen di sant di sant Serigne Abdou Khadir mi réalisé émission bi ak sunu cameraman yi Serigne Mourtada Ka leen di dig daje incha allah ci seen beneen jataay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم